Eh, eh, monsieur le ministre eh, monsieur le président monsieur les vice-présidents de l'Assemblée nationale monsieur le secrétaire général et tous vos services monsieur mesdames messieurs les secrétaires élus monsieur le ministre de la fonction publique je ne sais pas du travail en relation avec les avec les assemblées euh, chers collaborateurs des ministres chers collègues députés M. Euh, Monsieur le ministre je vais commencer par saluer euh, vos collaborateurs le directeur général du budget ici présent le directeur général des douanes qui fait un travail extraordinaire le directeur général des impôts et domaines. Euh, monsieur le ministre di nuyu nag waa DGB yëpp parce que ñu ngi ànd ak yow boobu ba léegi di liggéey liggéey boo xamante ni am na solo tànn ci Amadou Lamine Gueye LMD tànn ci aussi sama sët bi Moustapha Ba nga xam ne bu yàggul dara dinaa dem sëy incha allah euh, monsieur le ministre ma ñëw rek ñëw ci loo xam ne problème la Sénégal yëpp xam nañ ko waaye bala ma cee ñëw damay ñëw ci yow ndax wax waxaat du bëri wax répétition tubaab sax nee na pédagogique waaye yàlla dafa def tey ban des accusés ñi fi toog ñëpp benn yar bi lañ leen ay at ak bii dugg def ak yow en tant que directeur général du budget mais tey yàlla mi yëkkati te a yëkkati la ba nga doon ministère des finances Moustapha Ba xam ci yow cawarte goo xamante bu doon wopp rek ak wopp woppulu doo fi 24 heures waaye depuis nga nekk directeur général du budget da ngay toogal ministre ba abante won nañu sax xeyna ministre bi ñëw midi nga jëlé ko ay question mu répondre mais yow minal nga nit ñi sa bop ba député yépp xamni kuy liggéey nga kuy toog kon loolu cër la nga cëral ko député yi fonk député fu la député né Moustapha nga taxaw té loolu cër la yàlla na nga koy jox nit yàlla na la yàlla yàggal sa place may wax ni tous les Sénégalais sont imposables tous les entrepreneurs tous les entreprises

mais quand nit dañ koy yërëm nañu woote waxtaan wàññi liggéeykat yi ku nekk dellu fa nga doon liggéeyee ndax liggéeykat kat yaa ko wax xëyum ndaw yi nga wax budget solution nga wax kon monsieur le ministre budget bii tey buñ ko dee voté dañoo bëgg nga woowaa seen TV ak ñooñu nga waxtaan ak ñoom ak directeur des des des impôts et domaines gor su gore soosu ñu dimbali leen li laay wari sooli ndax ay njaboot a fa nekk di liggéey ñu wàññil leen wala ñu détaillé leen ñu fay monsieur le ministre affaire suuf moom ngir yàlla rek na nga ci wax littoral bi aéroport bi sénégalais yi mënul ñii nag di am fukki kër ak juróom ñaar ñi ci des du ñu am dara gis nga fii le droit de sol dañ ko war a dugal ci li nga xamante ne moom mooy euh, code civilu sénégalais boo juddoo rek buñ la enregistré rek nga am droit am benn lopin de terre bu 150 cinquante mètres carrés mais voyez-vous de monsieur le ministre am na ci ñoo xamante ne fii ci Sénégal ba naga ni amuñu kër monsieur le ministre jàpp leen ni suuf si ñuy caxat caxatee ñii am 2000 mille mètres carrés ñii am zéro du lu jub loolu moom na ngeen ko xam bu dee budget solution la monsieur le ministre d' accord naa bul fàtte Pikine Pikine dama am lu ma ci waxanteeg waa Pikine ma bëgg lépp luy ñëw nañ ci jàpp Pikine dellu fa mu war a dellu il faut corriger pour le département de Pikine monsieur le ministre nag Espagne laay mujjee gis nga ku ko defit def injustice gis nga liggéey ku ko liggéey ba tax yàlla dimbali ca ba nga am ca résultat